affaire Hissène Habré Madické Niang maître El Hadj Diouf ak ñeneen i ñeneen ñooy avocat eh, eh, Hissène Habré Hissène Habré këram nañ ko fekk dimanche matin na ko compet jël yóbbu ko te Madické Niang bokk na ci ay nañ ko seeti moom wax ñu ndax lii ñu def yoon la war du yoon Madické Niang ca wet ga nijaayu Marlon Ondimba tonton Modix Adja Koudia Adja Xuja maa ngi dem fii ndax léegi dañ ma woo téléphone ne ma isan dañ ko ñëw ne ko coppet payi dugal ko ci oto yi dem du ma sori xam nga suñu dëkkandoo la mu ngi fii ci côté gi rek ma dem nemmeeku ji dem xool lu ma fa jëlee rek après def conférence de presse na nga xool xale yi te tëj bunt bi comme que léegi dañuy jékki-jékki rek juuxu ci kër jàmbur te ñu wax kenn dara xoolal bunt yi gis nga isan mi nga xam ne yàgg na Sénégal waru ñoon def leneen lu ko di ko def nii salaamaaleykum waa Sénégal man la maître Madické Niang bokk ci avocat avocat yu xarañ yi nga xam ne ñoo yor affaire dossier Hissène Habré Hissène abre def na fi ñaar fukki at fukki ñaar fukki at ak ñett muy 23 ans yàgg ci réew mi xam teraanga réew mi dem ba ay doomam juddoo fii Hissène boo demee këram da nga yaakaar na soxnaam ndar-ndar la bu la toggalee ceebu jën nga laaj ko foo juddoo mun a càdd foo yoroo mun a càdd luy sa nationalité mun a càggeen waaye Sénégal laa xam senegal laa laa laa laa xamee togg yu bëri. ba barke Dembo Ndiaye moo ci mujj ba ma leen dem di ziare ajjuma bi bi ma jullee ajjuma pare dem xuus ci kër gi di leen nuyu maa ngi ko fekk mu togg ceebu yees bu saf sàpp ba ka ma àndaloon di ak tubaab la mu ngi naan ma est-ce que kii sénégalaise la ma ne ko déedéet du sénégalaise waaye borom këram dafa yàgg Sénégal keroog laa lekk ba daj daqaar ci biir keroog laa lekk ba daj li nga xam ne mooy yoxos ci biir ak paañ ak suul ak bëgëj xam ne ku dëkk Càdd ñoo di togg loolu yàgg na ci réew mi kon Macky Sall liñ koy ñaan mooy xaw ma ku def war a ku yónnee waaye Hissène Habré sénégalais la Habré yàgg na ci réew mi Habré yàgg na ci Sénégal gi boo demee këram ñaari làkk ngay dégg ñu koy wax làkk tegee ak làkk olof Hissène dégg na tukulóor Hissène dégg na joolaa séeréer ndax yàgg na ci me mi 23 ans ku ko am ci dëkk bi kaye nga jàppal na sénégalais la te dañu xam ne nag bañkat la bu leen ñu fàttale ne Hissène moo dàq ji woon xale fi ba ca frontière ba daa dee aar dëkkam kii jàmbaar la guerrier la waaye fii ñu ko def ni xëy suba teel bàyyi ñu ko sax mu ndékki na ko ci compet jël xam nga ne lii ñaana ci ñu ngi ci weeru koor gi man na dama ragal ne état bi état kaso la état prison la gis nga ne isen ni mu toll ak ni mu tuutee nit ku tuuti la nit koo xam ne yàlla naka bind mu nekk nit ku sew koo xam ne wax dëgg yàlla bu ngelaw gi fooree sax mën naa daanu ndax ci yàlla ko bindee noonu ñu koy jël ne ko compet di ko yóbbu ci ay kaso di ko téye kooku mooy dañ ko nar a rey mu dee ndax xam nga ne isen li mu xam ak li mu tàmm mooy li nga xam ne mooy këram ndax musut a génn musoo ko dégg ci benn coow waaye li nga xam ne moom lañ ko def nii suma teel sëlmugul sax mu sax defu ko jabar ma ko wax jabar ma ko wax may woo nag waa droit de l'homme yi nga xam ne lu xew rek ñu ñu ñu woote wax ne du yoon li ngeen war a wax a nii am ngeen loo leen wax am ngeen loo leen wax ak lu munti demee rek li ñuy def ki nga xam ne mooy abre du yoon ndax abré sénégalais 100 pour cent la ku dëkk fii wakaam gi nga xam ne boo demee ci jaraaf wakaam ak waa wakaam koo laaj mu ne abré suñu naatandoo ñu dëkkandoo la kon abre sénégalais la kuy xëy di togg cere di togg ceeb di reeree cere fonde bu ñëwee nga fonde ngalax bu ñëwee nga ngalax ngurbaan mbaxalu saalum yooyu yëpp soxna abre da koy togg kon looy wane ne sénégalais la waaye ki nga xam ne nag dafa bàyyi réewam daw làqatu damul Gabon demul Mali demul Guinée demul Guinée équatoriale demul France demul États-Unis Sénégal la ñëw la nga xam ne moom la amoon dajale ko as tu bokk ñun ay këram ay sénégalais ko tabax kon main d'œuvre boobu nga xam ne mu ngi dugg ci Sénégal ak colère googu nañu war a seet nañu dalal gan dëkk teranga la waaye xam nga ne li ñu def <coughs> ma kan ciy tegu de bàyyiwul gan kuy toroxal gan doo bàyyi ku ne ci dëkk bi man de yeebu naa waaye nag liñ def nii dana danañ ko defante ñoom ba mu saf sàpp te duñ ci dellu ginnaaw su ma jógee fii dinaa woo léegi ki nga xam ne moom xëy na moom dangaram ak xadaram moom may gën a tàng muy maître El Hadj Diouf maa ngi ñëw léegi ñu taxawal collectif bu soobee yàlla xam na ñu ne nar a xañ lu neex ajjuma gu kër abre laay añee bu toggul ceebu géej yees def na ceebu coof a ceebu toje ah ceebu toje ceebu toje barke dem laa fa jógee ñu togg ceebu toje jël daqaar gi def ko ba mu ba mu saf sapp ci wet gi ak kooñ gi ah ñebbe gi ak korot lépp ci abre ah xam nga ne loolu doy na waar ñu nar ñoo xañ ajjuma ajjuma gii di ñëw de maa fa commandé woon dernier ceeb ndax xam nga ne altine ñu woor na ko defal ceeb bu xonk cur boo xam ne day am suweer ne ko ajaa xuja di ko defee nga xam ne bu rosé ba mu ne cur tomate ko dog mu def ci tëmbal ci ñam bi def ci carotte loolu lañ nar a xañ Macky Sall xañ nga ñu liberté nag bëgg ñoo xañ neex waaye ba ko sëñ Sall maa ngi wooyu léegi ki nga xam ne moom xam ngeen ko ci yéen la nekk te moom laaminam du ko téye ci poosam man sax du ma ko téye ci poos waaye comme que dama taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay international la waaye xam ngeen li ngeen def def la ci yoon madame Abré soxna nekk lu sa borom kër tamit nekk ci ay jafe bu tax nga fomm yaa ma ko digoon ceebu xonk bu ànd ak toje nenu jën yàlla moom bëggaj bu fóor yoxo sak paañ xuluñi ak ñebbe yàlla boo ci def li nga xam ne moom mooy yomb yooyu yëpp àjjuma bi laa ko naroon lekk Macky Sall xañ na ko ay Macky boo xañee nit ki mu nooy bul ko xañ nit lekk ku ciy tegu ay ku ciy tegu weeru koor yërmande ajaa xuja wool salbe xool ku ci tegu